émission laa fay def bu tudd dalal ak jàmm tey nag sama gan bi njëkk sama xarit sama frère muy Cheikh Ousseynou Sy naar borom Touba moom laa dalal ñu fas yéenee waxtaan jigéen ci biir këram nan la ko war a gérer nan la war a téye borom këram nan la war a téye njabootam lool day moo ñu fi tax a toog te du ma yem ci moom rek de déedéet am naa ñeneen invité surprise yu ñëw maanaam xeebuma kenn. كيف كو ام سخالات بو رافيت مونا توك كاسوكو وخي مو جاري اسكان وي ماغي لاي وو في سما بلاد بو سما خريت سما ما دار لا جام اوكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشياطين الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صون بنت سام مانغلي سيار باخ باخ فيتي برستيج تشيس بوين كوم ci ngent bi nga wax ci sa émission bu bes bi nga xamné dalal jàmm la tuddu de nga ah wax deug yalla man de amna ci mbekté lol ndax yow nit ku bax nga te fi nak ah la lini nit ñi di wax naan de mam ku bëgg lu bax so fi ñëw di nga am lu bax ndax lu bax lañ fi wax ndax émission bi nga xamné de nga mom nga lolo de nga waxtaane loolu nak moy defar kër yi loolu moy defar njabot yi loolu moy li nga xamné de nga mam mom la nit ñi wara ci nak ndax ci lépp dégg maam nga nar fas dem insha allah bisimilahi taala kon nong ngi sant dégg maam mboolem ko xam ne kii yaa ngi nuy setan ñun cheikh ousseynou ti naaru borom touba de nga kep ko xamne ki ah, am nga ya xam muy jankat ya xam muy kat ya xam ko xamne ki de maam ya ngi yëngu ci dara te muy si dégg maam di njëriñ rew mi ah nong ngi lay woo dégg maam fi ci prestige chess.com di sant bu baax nak suñu directeur dégg nga Pape Doumbia di ko na yàlla guddal fanam wér ay cëram waaye noo ngi siyaare bu baax tamit dégg nga maam suñu technicien yi dégg nga maam ndax bëgg fàllu dégg nga kenn ku ne xam ko ci Serif Mbay waaye dégg nga Duudu mi nga xam ne dégg nga ah Duudu Jàllo di ko baax Jàllo Jàllaaloo di siyaare dégg maam mboolem koo xam ne kii yaa ngi ci liggéey bi rek kon su ko defee rek dañ doon nuyoo ah xanaa nu bàyyi ak Binti Samb dégg maam nu daal di wéyal dégg maam ci liggéey bi nga xam ne moom nga wax bisimilah. thème bi jigéen ci biir këram. Mm-hmm. nan la war a gérer borom këram ak njabootam. Mm-hmm. ndax damay gis man. Mm-hmm. loo xam ni neexuma. te bu ma sanoon benn jigéen du ko jëfee. yor sa njaboot di nga xëy suba ba ngoon doo ci teg kenn bët doo xam fuñ dem. yow sa yoon nekku ci. ku dem ba ñëw rek. am lu mu la jox rek doo ko jéem wax sax fan la ko jëlee yow kon jox na la rek. ah sama doom <laughs> foofu euh, dañoo wax ne euh, jigéen mooy boroom kër góor day neexal kër góor day wuti indi su indee ci biir kër gi dégg nga su fekkee lu mu indi yàq ko kër gi du baax. jigéen mooy yar njabootam. Jigen mom moy wax de mam ki moy sen bay nanga ona sen bay bu ko woyé de nga day daw doom yi ne ko waw yaay fo jëm mu ne sen bay ma wo ni ko wa ana say dal mu ne ma fa fek su ci bay bi tok sukk ci souf wax ak mom te kaddom du gëna ko wé kaddu jëkkëram de nga jigen bo xam bi yaangi yaa nonu di wax de nga sa njaboot ah topp leen seen baay déglu leen seen baay dégg nga yar leen teg leen ci yoonu siraat mustaqim ku ko def ku ne sa kër dina mën a jàkk dégg nga soxna kon xam naa ne ma bàyyi la dégg maam nu daal allah maa ngi ñëwaat ci yow. Seydou hmm. hmm. soo bëggee sa njaboot barkeel. Hmm. da daw ci seen ginnaaw baay. ok. loolu mooy dëgg. bu la santee nga def. Mm-hmm. su la teree nga bàyyi. Mm-hmm. bu la nee bul dem nga toog. Mm-hmm. ndax nag. yàlla dafa ni. topp leen seen borom kër. dëgg la de. kon euh, jigéen bi baax na topp borom kër te soo bëggee nag. yar say gone. da ngaa war a topp say borom kër. dëgg la bu ñu xoolee yow nii nga topp seen baay. boo liggéey ñoom foo leen teg. ka nga leen boo leen. dinañ ko respecté dinañ xam mooy kan. ndax dinañ ni ah man kat sama yaay nii laa gis mu doon defal sama te ba mu ko daan defal sama papa de daawuñu xeex daawuñu xuloo daawuñu werante comme man naa defee nii ak sama borom kër. dëgg la waaye boo yoree sa doom. Mhm. taluloo ko. Mhm. taloo baayam. Mhm. du sotti. il faut nga toog sa kër gérer liggéey nag. mën nga dem nga liggéey. boo wàccee nga ñëw toog ci sa njaboot nga yar leen lépp daal. liñ daan xale danga koy yar bant bu toy la mm-hmm. so xaaree ba mu wo mm-hmm. nga bu ko ci day dam day dam deug la lolu mm-hmm. il fo nga teel yar sa jabot xamal len même bima fa baye sen baye dem liggéey du tee suma su lima wàccee war ak mom dina ko def deug la dina ko def ba mu wa kay kon soxna Binta gis nga dana wax ne yar ak teggin day neub askanu bon gis nga yar ak teggin day nëbb askanu bon waaye gone ko réew day feeñal bori baay ak ndeyam te du ko fay kon yar nag fi muy jiitoo mooy soo amee sa doom fexeel rawati nga ab jullit yóbbu ko ci daara mu jàngi alxuraan mm-hmm. dégg ñii nga xam ne dégg maam ñoo nekk dégg maam te duñu ay jullit seen doom dañ leen yóbbu ñu defee ak catéchisme bu len jardin d'enfant am déet hmm. nit ki nak dégg mam bu fekke ne ab julit nga war ngaa yóbbu sa dom dégg mam jangi alquran alquran bu jito ci dom ci deñu xalé yalla meuna def dégg mam jubantiku jibantiku te lolu mom moy yar gi ñu jël gone yi dégg mam fexé leena yar teg ci yoonu mustaqim xamal leen dégg mam kan moy seen wayjur xamal leen mbedd mi dégg mam du du fural neex ngay duggu fural neex ngay dem gis nga euh, Dina la xamal de nga binta nit ku bax soo buggee dégg nga maam ah rawat na ngay jigéen déggal sa jëkkër ndax léegi yaa ngi koy wax waaye yoon bi sallallahu moo wax ne ah, saaba yi dafa toog ak saaba yi asxaaba rasulullaay ne ko yaa rasulullaay ñu de dina bëggoon nga wax nu benn dégg nga yóbbal boo xam ne bu gën ci àddina ñu mën koo jël di ko yóbbuloo mën leen yóbbal bi gën ci àddina imratun saalihatun mooy soxna su baax xam nga soxna su baax jar ay milliards. Mm-hmm. ndey ju baax jar ay milliards. Mm-hmm. ndax ku la gën ndey moo la gën waaye ku la gën soxna moo la gën dund. Mm-hmm. ndey ju baax jar ay milliards waaye soxna su baax jar na ay milliards boo amee soxna su baax dégg nga ah koo xam ne ki da lay déggal dégg sa xel dina mën a dem foo dem di nga mën a liggéey waaye yor soxna soo xam ne sii doo la wax na ceeb bi def na ñetti fan. du la wax dara dangay wàcc rek fekk saaku ceeb bi ñu wekku ci ligne bi boo nuyoo mun la xanaa demoo dëj ba. nga dugg ci biir kër gi mu la ni ma sewale sama natt yi sama ndey dikk yi sama sànni jàmbare yi dégg nga kañ ngay am jàmm ah nii leen ma soxla xam nga binte damaa bëgg nga wax ma ah, ah soxla su baax nu muy mel laaj ma ko. na ma nu a yem. dëgg la. am na soxna yoo xam ne. ravitaillement ñoom la. yëfi xale yi ñoom la. courant ñoom la ndox ñoom la. lëjaluñu seen borom kër benn yoon ndax li ñuy sóor mooy ëllëg boo leblewul kenn du la fay soo lebal sa borom kër sa njaboot du la mën a fay man day xam naa ni maa ngi sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci saa waajaangoo waaw di sant sama borom kër bu baax a baax ak baax ndax tamit comme yàlla dafa yemalewul su fekkonte ni bu ma jógee di liggéey daf may téye. Mhm. di ma laaj fooy dem. Mhm. guddee nga. Mhm. fan nga nekkoon. kon ñu bari du ko mën. dëgg la ñu bari du ko man ñee naa jigéen joo xam ni. du sonal borom këram. lu mu war a def dana ko def. lu mu war a lijjanti ci xale dina ko lijjanti. parce que tamit kenn defuti jaboot ba ñàkk. déedéet déedéet. jaboot mm-hmm. loo ci def yàlla dana koy fay. wallaay dëgg la dañ ni jabar yàqal. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la <laughs> waaw kon soxna euh, Adja Binta dama lay bëgg a wax ne loolu nga wax dafa am ci kër yi jigéen joo xam ne ji dégg maam ah mooy mooy joxe courant mooy joxe ndox mooy def lépp te du am jàmm ci këram xam nga loolu du yoon. gis nga góor gu dul joxe dépense dañ lay dépassé. xam nga loolu ah, yow Adja góor gu dul joxe dépense dañ lay dépassé man de xam nga nu may doxee man eh. jigéen ju ma yor hmm. dégg nga hmm. ah lu ma am bokkook yow loo am ma bakkook yow dinaa la sagal say dégg ma say bokk ak say doomi baay dinaa la sigil du ma dóor du ma saaga du ma xas dégg nga ah soo amee ngénte ma jox la nga dem ndawtali soo amee dañ ma ànd ak yow jaale jaxal su guddee ma jox la sama doole bëccëgee ma jox la sama wërsëg dégg nga yàlla tere boo dee ma ñaan nga dem àjjan te mësta am nag

léeg-léeg xolam dina fudd mu am nu mu def mais sooy def suural di sa jaboot li may wax rek. sa jaboot la la tax ngay def. dëgg la boo liggéey soo koy fayeku dina neex lool lool lool lool. nga fekke ak nga bañ a fekk dina ni lii kat ndey ma ko liggéey doon bàyyi. dëgg la dëgg suñu borom loo liggéey la koy fay. wallaay dëgg muy bu baax muy si mm-hmm. la dëgg la koy fay dëgg la kon sant yàlla daal. kon loolu loolu ba tey euh, li nga wax. man de ànd naa si jigéen bu nangu de moom jëkkëram ndax dañ na maam Cheikh Fall lam baabi muridin dafa wax ne ah bisimilah jàmm ah nangu daa jël cëru bañ. Mm-hmm. nangu daa jël cëru bañ man Ibra Fall nag jiital naa nangu doogalaat xam lu mu doon su ma xamee lu mu doon kanam laa ko jëmee. Mm-hmm. ay déggal saa waaj. ah da ngay xool dégg maam tey jii exemple bi ma lay jox ci soxla su baax soxla su gore su jullite. Mm-hmm. koo xam ne kii ba mu am fukki at ak ñeent dégg nga. benn nguur dabu ko ci jaamu yàlla ak ragal yàlla ak bëgg Seydina Muhammad saa sallam dégg nga muy soxla soo xam ne si dégg nga moom la ñu wax maam Jaara Sulaahi Buso kooku setum jolle ba aw ba farimat sàll aw dikk Camara Ndumbeeg soogeeg maam Daara Jaak maam Assawaal mu jur soxna jaar mi ci poroxaan xoolal soosu pour war na ne booy wut exemple da ngay wut exemple ku baax kooku laa la wax ne da xool soxna maa Anta Ndiaye moo nekkoon dégg nga maam ah, jigéenu Maamor Anta Sëli du wajuru ku tedd ki ma ne la bi nga xamee ne ah mu ngi war a samp kër ah soxna ma Anta Ndiaye la ñu woo moo wal fanweeri àndaar dugub def cere baraay pour wax la ne jamono ji nit ñi alal rek la soxla dégg nga moo tax soxna si bi mu defee loolu ba pare mag ñi danoo dem jëli dégg maam pour soxna si bañ demee ñëwut ñu gontaat dem fanaan fa ñëwut ndeke ñoom li leen dal mooy li dal jigéen ñi léegi ah moy li xew ci jamono ji fimne ni ne ma dañ ne jàngalekatu alxuraan la rek gis nga fimne bu fekke ne amo veille villa voiture vidéo virma ak yap wata bor demo italy demo Espagne demo Allemagne ah. de nga waxun ci yow dara te mag ñi liñ daan def dañuy set ko xamne ki, de ko am xam-xam ñu jox ko seen dom ngir mu am ci mom de nga dom ci barkel ndax nu jangal ko lolo tax de nga kérok soxla ci ñewul ma Anta dafa joy daal dem ci waajuram waajuram dégg maam daal ne ko lan la mu ne ko xanaa sama càmm ñu li ko def mu ne ko loolu lu ñu ko def mu mu nettali ko mu ne ko léegi dama lay bindal bataaxel dégg nga nga dem wàcce sa bopp ci moom ma may la ko nga wàcce sa bopp ci moom dégg xoolal jigéen bu ñuy jël may la jëkkër bindal bataaxel nga dem àndook kenn nga wàcce sa bopp sa kër jëkkër dégg nga est-ce loolu dégg nga amati na fi mu ne soxna si dem wàcce boppam ci kër Mamour Anta Sali dégg nga nekk fa dégg nga maam ba mu yàgg mu daal ne mbàkki man de daa am lu ma bëggoon waaw jigéen ak sëriñam dañoo war di waxtaan mu ne ko loo bëggoon mu ne ko damaa bëggoon nga wutal ma ku ma wet ci kër gi loolu yombut de mu ko wet li ci lu xanaa nga wutal ma wujj mu ne ay Anta Ndiaye yow moos yaa indi sa bopp dégg nga àndoo kenn yaa wàcce sa bopp mosoo ma def lu ma naqari yow dina est-ce yow dégg maam dinaa la wutal keneen du ma la wutal keneen xanaa nga wutal ko sa bopp mu ne ko xanaa dégg maam soo ma ci joxee ndigal. mu ne ko jox naa la ndigal ñetti fan la toog daal di dem dégg nga ah fan la dem seet soxna Asta Waalo booba soxna Mariama Bousso dégg maam lañ koy wax dégg nga kenn tuddee ko maam Jaara Bousso keroog ba mu fa demee dégg maam yenn fa ba ngoon soxna si de koo daal di ne ko dalal ko mu ne ko ana ana lu sa yitte mu ne ko sama rakk ji laa bëgg nga jox ma ko mu di ma wétli ci kër ga mu ne ko wétli ci lan mu ne xanaa mu doon sama wujj mu ne koy Anta Njaay wujj de boo ko waxee sa ñaari <laughs> xoolal Adja Bint waxal wujj ba xam gis nga wujj boo xoolee si ñaari tudd duñ laalante mu ne ko wujj dégg maam laa bëgg dégg maam mu doon mu ne ko sunu ndey ndax mënumaa bokk moom jàng alxuraan mu ne ah kay mën noo bokk def salaatu ala nabi mu ne ah kay mën noo bokk julli mu ne ah kay ne kër Maam Mor Anta barke ne fa ma bëgg ñu bokk ko ndax mënta am mu ne ah kay ana lu ko wax def ko ne dégg nga nangu naa keroog bi nga xamee ne dégg maam soxna si moo jël moom maa Anta Ndiaye ay jaarooy noppam ak ay lami moom la jaay def ko cen gi. xoolal ma lii dégg mu déw ci Mamour Anta Sali ne ko alxames kat soxna si dina ñëw mu ne koy Anta Ndiaye yow soxna si bu ñëw fu muy dugg yow sa néeg bi moo fi nekk wala daara eh, mbaaru eh, dongo yi wala waañ wi fu muy dugg mu ne ko fii ngay wax ne sama néeg la nañ ko defar ba mu baax ba mu jàkk su dikkee na dugg si néeg man ma dem ca mbaar ma jigéen boo fi takkal soxna wujjam di ñëw soo ko waxee lim lay wax ma ne boo moytuwul dégg ma nga fase ko mooy gën waaye nu mu ko def daf koo jël def rek ko néeg bi soxna si ba mu toogee di jël ah di war a waaj pour ñëw alkaamil alxuraan la jël ubbi ko soxna maam jaar ci laay ba mu ko ubbee daa yem si maakaana muhammad abaa ahadin min rijaali ilaa axiri aaya mu daal ne man de bu ma doon rëbb kon ma ne sooy naa ñu ne ko waaw lu tax mu ne damaa bëggoon su ma demee ci kër sama sang boobu maa fay jur gën gi mi waaye wax nañ ma ne gën gi mi déef dégg maam judd na alxuraan ma ko wax mm-hmm. waaye su ma fa demee maa fay jur mën gi mi ma ne ku yàlla bind Seydina Muhammad la gën waaye ku yàlla bind Xaadimu Rasuul moo la man soxna si keroog dégg lañ ko jël mbuur ko teg ko ci fas yi dégg muy dem dégg nga lañ ko muur bi ñu ko demee ba mu yàgg dégg ñu daal di ne nag soxna si ne leen wàcce leen ma ma barkeelu ci ki ma jëm bala ma àgg gis nga jigéen day sàkku barke. bañ ko wàccee dégg nga maam muy dox ba mu yàgg ñu ne ko kaay yéeg ci fas yi ba mu yéegee ci fas yi. dégg nga fas wi daa dox tuuti daal di fa kastalu xaadimu moo téye fas wi te moo àggul kër Maamor Anta Sali waaw kon koy xaadimu rasul keroog ba mu ne cëpp kër Maamor Anta Sali dégg nga soxna ma Anta Ndiaye mi ko lijjanti moo ko ne Mariama mu ne ko Bousso Mariama mu ne ko Bousso mu ne ko kër gii de jaamu naa fi yàlla liggéeyal sama sang bii ñaan sama borom ba sama borom may na maa fi jur jant ak weer bi ma bu suba su ma jullee yoor yor ba noppi naa la tontu maa ngi guddal sax waaye ndax waaye lépp dégg maam ah ci euh, Adja Binta ci mbir mi rek la jëm dégg nga pour wane exemple xam naa li may wax sax gudd na dégg nga waaye incha allah dina damaa bëgg rek dégg nga euh, dinaa ko àggale waaye koo xam ne kii bëgg nga loolu àgg dégg nga nangu seetaan ci émission bii danaa ko àggale nag. waaye ku bëgg dégg nga maam àgg nangu seetaan si émission bi ci beneen émission naa ko àggale mooy soxla dégg nga maam maam Diarra Talle Bousso bi mu dikkee kër maam Sali soxna ma Anta Ndiaye mi ko dalal ni def dégg nga ak ak ni mu déggee dinaa dinañ ko kii incha ndax noo ngi nekk encore ci wàccaay di nga poroxaan a ngi ñëw. wallaay waaw ku sañoon di mel ni moom waaye ñu a jaar fi muy jógee dëgg la jéem a wallaay dëgg la euh, ba tey rek mhm. damaa bëggoon tamit mhm. xam naa du doon tey mhm. mais nañ ko kar bii di ñëw jigéen ñi nga xam ne xaalis bu ñu am yàqu ko ci lu ñàkk fayda waaw dëgg la loolu loolu xam nga fi mu ne jamono ji loolu moo fi bari waxuma la dara waaye demal ne ci loo xam ni amul benn fayda xoolal yow dangay ngay xewle rek ku ne jox la nga jël lépp dégg maam jox ko ci benn guddi daal di toog sa jëkkër dee maam ci lu xew nga ne ko jox ma su fekkee ne góor gu mel ni man man damay sagal sama soxna su ma laajee ma jox ko waaye damay bëgg dégg moom muy su honneur nag waaye bés boo xewlee nag dégg maam encore nga jël lépp joxe ko boo xëyee doo am looy dékkee waaye loolu neexut na. waaw. góor ñu bari joxe. waaw. góor man damay joxe nag. <laughs> man damay joxe man damay joxe nag. yéen kay. waaw lu ah, ko joxul dama lay wax nag xam nga li waroon am dégg nga yow bu fekkee ne xew bu am nga laaj ma ma jox la nga dem xew waaye bés boo xewlee nag ñoom jigéen dinoo waroon a yeewu foofu nag ku xewle nag buñ la indilee nag liñ la indil ñu bàyyee la ko waye yow deug bo xewle deug mam da ngay xey do am sax lo ndékkee nga dang koy joxe ba jeex lol pour lan. Cheikh Seydou Ndour dañ koy sagal. ah wa dañ koy sagal mais nak nuñ koy sagalee ci nag. ah wa léegi lol après lañ koy wax. Ah, lo sagal ci tok ci tan bi ci bir geew gi rek deg mam di di di dax ay jooni nangam ay 500000 1 million nga yëkëti ko joxe ko te yow amoo lal sax bu jaar 200000 ah dañu waxanti deug rek. do njëkk yaa ngi toog. bàjjen yaa ngi toog jaam yaa ngi toog il faut ñu jël ñun ñu nit ñu yor ñu jox leen ko. waaw pour ñu am woy du am déet. ah waaw waaye woy bi dégg maam woy woy ba kañ. woy bi toj na xam nga lañ bëgg jiw toj toj <laughs> toj boo xëyee dégg maam am. loolu ba nga te gis nga nag jigéen ñi war na nañoo seetaat nag. kenn yow tey ji bu fekkee dama la damaa xewle ma daal lay wax di maam nga daal ñu indi ma 500000 bés boo xewlee. su ma la indilu 500000 nga bëgg maa yóbbu police loolu nag moom nu mu demee. kon xanaa dootul dëgg nag kon. Ah. buñ dee ànd pour dimbalante kay. kon dégg nga soo xewlee su ma la joxee 500000 man su ma xewlee. Hmm. dégg nga war maa seen 500000 waaye yéen da ngeen di seen su dégg nga maam 800000 loolu nag moo yàq réew mi. xam ah. natt la léegi natt la. a nekk dimbalante. kon kon kon. ñuy dimbalante kenn du ko bind. <laughs> waaye soo ñëwee indi sa 500000. <laughs> ne dama ko koo jàppale ñu jël ko bind ko ci digga fëy mhm. kooku nekkul di bëri te dama la koo lebal li may moo tax man yi man nee ci mhm. àdduna kuy dee surtout man ñun jigéen ñi kuy mhm. dee yóbbaale bor ah. kuy dee di ko yóbbaale ndax yenn ndaw tayi yóbbaale bor la jox la fukki junni nga may xaar ma xewle pour nga delloo ma ko te kenn li kenn ndaw tale tuuti maa ngi foofu loo joxe yaa ngi xaar pour ñu delloo la moo tax ñun ñii waaw ndaw kan dañ ni dawal jox ko borom te ba mu koy tànn. Hmm. soo amee sa bis <laughs> bi nga ne waxaatal foofu nga ne lan ndaw tàll nga ne. dawal jox ko moom ca ba mu koy tànn. ba mu koy tànn wax nga dëgg maanaam bu ñu nee bi des na ñeenti fan. Ah. wala ñetti fan. Ah. xam loo ko jox tànn na ko. waaw mais soo bàyyi ba bis. ñëpp ñëw. Ah. embouteillage bi. Ah. taxaw di ko wàññal li nga koy wàññal. talatu ko talatu ko. wallaay dëgg la looloo tax nga daw tal dawal jox ko ba mu koy tal. waaw. day mel ni tey bu amoon cant rek nga bàyyi bu bis ba doog a ñëw di ma kii avant bis bi jot ba ma jëndal nag jënd ma nag baa ma baa nga kii ma talatuma ko fekk may leb ba ba bor yi sama kaw ah waaye bilaa yow <laughs> Adja Bintou man kontaan naa ci yow waaye dama lay wax ne nag euh, kontaan nañu bu baax a baax waaye dama ne dañu dellusiwaat dee maa ci jigéen dégg nga ak jëkkëram jigéen moo jëkkëram danoo war di conjuguer ndax dégg nga déggoo daa war am seen biir waaye am sa soxna du ngeen waxtaan du ngeen du ngeen def dal ne dégg nga maam kii di yore journal di lii fekk kii su journal fekk gis naa ñoo xam ni dégg nga kenn ku nekk sa télévision ku nekk ak sa néeg waaw loolu man ban sëy la sëy tubaab la wala lan la wala lu mu doon man bint maa ngi lay laaj loolu. Ah. waaw góor bu la bañal nga wàcc ñëw toog sa jabar bi congé yi. Ah. mooy am na coow. Ah. ah. man de léegi daal bint aja bint daal na loo xam ne man damaa jaaxal xam nga tubaab bi fi mu yàq suñu réew mi ñaar ñaari teel la mooy télévision ak téléphone. xam nga téléphone moom mooy téléphone rek. damaa gis ne <laughs> léeg-léeg nga gis jigéen di toog ak jëkkëram ah ba mu yàgg téléphone bi daal di kii dégg maam sonné ñetti un ngay dégg ñetti un mm-hmm. da naan kii mu ne un mu ne ko waa yow foo xanaa da toog sa jëkkër mu ne un mu ne ko ah loolu moo tax kay wuyoo mu ne ko un muy ñetti un dégg bu dee nag ku góor gi mm-hmm. dégg nga coro ba koy woo dégg maam mu daa mu daa ne kar mu ne alors mu ne ko non waxuma loolu terrain bi nee naa la cent mille deux cent millions dégg maam lay jar du mu ne ko non mu ne ko waaye xanaa sa jëkkër nga mu ne waxuma loolu dama bu mu ko mënee baax na su ko mënul dégg maam mu bàyyi ko gis nga waaye léegi nag yow terrain lay wax waaye fekk na coroom lay waxal ma ne la kon téléphone mu ngi bëgg a yàq réew mi xam nga magnétophone tuddul magnétophone xam nga nu mu tudd man fen lu mu enregistré rek lay joxe caméra yi tamit kamaataraa rek ni mu la jëlee rek la koy joxe moo tax bari na ñoo xam ne ñu sax saa day feeñ. kon su ko defee waaw euh, waaw waaw a kon <laughs> waaw kay kon Adja Binte kon ah maa ngi kontaan bu baax a baax ci émission bi di wax ne nag ah ñoo ngi ci woon ñëpp nag ah plateau bi daal ñoo ngi ci woon ñëpp waaye noo ngi sant dégg maam bu baax a baax suñu directeur. dégg nga Pape Doumbia waaye noo ngi sant personnel bi yëpp nag bàyyiwuñu kenn nag di ñaan nag ah lii nga xam ne mooy prestigethies point com bii yàlla na mel ni làmp faal ndax képp koo xam ne kii daal am nga dégg maam sa te dégg maam boo fi ñëwee incha allah di nga ci am mbégte ndax kat Adja Binta ku ne xam na ko xam na ne Binta mi dégg maam Binta Sam mii nit ku baax la dégg nga man Cheikh Ousseynou Sy nag dégg nga ku ma xam-xam ne man ab taalibe rek laa dégg ma ñun dara ñor lu dul dégg ma ak euh, taalibe lu baax rek moo ñor ñoo ngi ñaanal nag. ki nga xam ne ki dégg maam mooy Sidi Muxtaar Mbàkke yal na yàlla dool leeram waaye noo ngi ñaanal dégg maam ki nga xam ne mooy sëñ Muntaxa Mbàkke bi fi toog dégg moom sëñ Basiiru yal na yàlla yokk wér ak kàttan te kat Sénégal nanu xam ne mbégte am na de binta xanaa xamoo ne dégg maam seen plateau bi mbégte mi moo tax sëriñ Bachirou Mbacke la sëriñ Tuubaa wax bisil bachar mu bachiri bi bachiri bachir la nasir kooku mooy borom mbég buy mbégalee ci mbég mbég mu ànd coupé ba àjjana kon loolu moom mooy prestige thies point com nag mooy mbég bi kon salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. dañuy sant yàlla bu baax nag. Mm-hmm. Uh, wax nit ñi ne doyaluñu mais comme maa ngi a ngi fi te lu neex du doy. waaw dañu koy def del ba beneen sama borom kër bu baax. sant samay waajur di leen ñaanal di sant sama sëriñ sëriñ Babacar Si kooku nga xam ni ku ma bëgg a jot ku ne foofu nga may jógal maa nga tiwaawoon ah. waaw di sant bu baax a baax a baax a baax baax samay bokk rawatina nag Thiès Thiès prestige point com mhm. foofu damay ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam lépp lu mu fay def yàlla na ko yàlla ful dumb yaa yàlla na gis lu weesu njortam fii amiin yaa parce que lu ñuy daw doon ko wuti la mhm. ko yàlla indee fii. Mhm. dañuy ñaan ñun ñëpp jàpp doomu dëgg. waaw dëgg la parce ñaar mën kenn te ñett bu bëri. dëgg la parce que ñëpp yi. <laughs> ñëpp ñëpp képp daal pour teew daal ñu ngi lay sant. di leen wax. Mhm. jox daje ba beneen yoon. waaw.